sukkandikoo ci discours bi mu mujjee def xamal na sénégalais yépp ne maa leen di jël témoin condition yi war a tax sama levée immunité parlementaire bii mën a nekk teguñ ko ci yoon condition yooyu jaaruñu ci kon nag ne sénégalais yépp xam ne kañuy yëkkati immunité parlementaire ci assemblée nationale du man Ousmane Sonko te buñ ko yëkkatee ba noppi tamit du wuy ji benn juge ndaxte condition yi respecté ko kon nag tey ji ci altine ji yem mars gannaaw ba ji juge huitième cabinet bii gannaaw ba ñu auditionné ki nga xamante ni moo ko tuumaal mbiru viol ak menace de mort di Adji Sarr ci alxamis ba la génn ci lu tolloog juróomi waxtu yoo xamante ne ni juge huitième cabinet bii déglu na ko ko fi toll nii nag Ousmane Sonko convoqué nañu ko ci àllarba ji bu 9 jotee muy war a jàkkaarloog juge huitième cabinet bii nga xamante ne ni moom Ousmane Sonko yàgg naa wax ne du ko déglu en ak lu ci mënti te su boobaa par force lay ñëw jàkkaarloo juge huitième cabinet bii ndax foofu la jëm ak lu ci manti xew Ousmane Sonko moom am juge huitième cabinet bi nag bañ Ousmane convocation bii moo tax convocation bi mi ngi ko jaarale ci moom Ousmane Sonko bu fekkee ne wuy yoon ñu déglu ko ci coow li nga xamante ni dar na ko ñoo koy jëli ca këram ca beneen wet ga moom ni ki suba ci ñaar ñi nga xamante ni war nañ leen déglu ci coow Ousmane Sonko bii moo di Ndeye Khady Ndiaye mi nga xamante ne ni moom moom salon de beauté bi ak Sidi Ahmed bi moom léegi leer na mu war a wuy ji juge cabinet bii niki àllarba bu 9h jotee ñëpp nag di xool ndax Ousmane Sonko mii dafay taxaw ci position bii ne du wuyu ji juge cabinet bii ak su boobaa tam ndax juge cabinet bii da koy teg mandat d'amener maanaam yónni ay takk ñu dem jëli ko lii moo jar a